li ñu war moo la war li ñu yaakaar moom nga yaakaar waaw mbokk yi comme comme ni ñu ko defee rek suñu Sunugal 24 saa su ne day dox si seen yitte bañ ñëwee ci kër imam bi mbokk yi bañ fi ñëwee tamit fii eh, doxantu ak sunuy caméra saa su ne lu ñuy teel rek mooy askan bi saa su ne diine yokk ci biir askan bi loolu moo ñu tax a jóg vingt 24 eh, teewal fi askan fi ñëwee tamit fekk nañ fi loo xamante ne dafa daw suñu yaram mooy ab soxna boo xam ne dafa ñëw jox boppam ki nga xam ne mooy e, sang bi nga xam ne mooy Seydina Mohamed dugg ci biir e, diine bi nga xam ne mooy diine lislaam ah, ñu teelu tuuti rek am mbégte tuuti tey imam ah, lii sunu bët moo ko fekkee ah, di la jaa jërëjëfal nga sànni ci ay kàddu rek waaw alhamdulilah sant yàlla ba tey ndax lii dolleeku la si lislaam ndax lislaam rek mooy dëgg yàlla wax na si alquran ne inna diina inda allahi lislaama diine daal fa yàlla mooy lislaam wax na tamit ne képp ku tànn beneen diina bu du lislaam rek moom yàlla nanguwut ko kon nag lii yëpp dafay wane ne lislaam rek mooy dëgg ndax yonentu wax na ne alxaqu yaaluhu wala yula alayhi dëgg rek mooy féetee kaw te dara dootu ko féetee ci kaw macha allah lii dolleeku la ndax lislaam bi su set si dolleeku rek si la jëm ah, tey kii nii macha allah yàlla dimbale na ko dugg na si lislaam tey lu dolleeku bu rëy rëy la ah, si moom mii nga xam ne ñëw na si lislaam ndax moom moo soxla lislaam waaye du ne lislaam moo ko soxla ndax Baye ba demee Gaana ah, ñu ne ko yow kuwaa min kurma gannaaw la doo ko wax mu tuub mu ne ko kurma moom moo soxla lislaam waaye lislaam soxlawul ko kon nag képp ku dugg si lislaam rek njëriñ li si moom rek lay dellu ñu ngi sant yàlla bu baax si loolu di ñaan yàlla yal na yàlla saxal ñu si lislaam ñun ñëpp yàlla wattuñu si lislaam wattuñu si gëm yàlla alhamdulilah imaam léegi lañ doon waxtaan ci li nga xam ne mooy actualité lii ñëw firndeel dëgg gi ndaxte lu dul dëgg rek lislaam doxu ci tey ñu fekkee dëgg goo xam ne confirmation la di laaj rek tey tamit tey sa kàddu gi nga xamante maanaam weesuwul sax bu ñu nee juróomi simili sax lislaam ñëw teewee ak dëggam tey yëg-yëg boobu lan la la def waaw yëg-yëg bi mooy sant yàlla rek te xam te gën see xamee te gën see ngoy sin diine rek ndax xam nañ ne li ñu yàlla jox ni mooy dëgg ndax léegi nii ñu ngi wax ci eh, Macron si yàq gi nga xam ne mu ngi koy yàq si lislaam gis nga yàlla def na dolleeku bii tey kii ñëw moom it dugg si lislaam te loolu dolleeku la loolu mooy waaye ne lislaam ca kaw rek la jëm te lislaam it ca kanam rek la jëm kenn mënta fay lislaam te kenn kenn mënta xeex lislaam daa wax naa la léegi waxi bàyyi bu benn américain di wax naan eh, lislaam mooy diina joo xam ne doom yaa ngi koy xeex eh, eh, ñu duut diina ñu duut doomam ñu ngi koy xeex waaye bis bu set rek mu ngi dolleeku waaw ah, te ñun lii yéen yéen ko tegal seen bët seen bët ah, du lu nit sos du lu kenn def waaye gis nga léegi ni ñu ngi wax waaye lislaam it ñëw na dëggal boppam di waaye ne moom day dolleeku rek waaw moo tax di ñaan yàlla mu saxal ñu si lislaam rek waaw si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, mooy euh, Baye ak américain yi Baye ak nigérien yi euh, loolu bëggoon naa tamit nga leeral si waa Baye dem Amérique waaye moom doon na wax mu ne bu ko benn nit oo woon Amérique ni dafa bëgg a tuub mu ne moom dana dem Amérique ngir tuubal kooku waaye ngir dundam demut Amérique waaye sëtam di Cheikh Imam Hassan Cissé radiallahu anhu moom moo dem Amérique ba mu demee Amérique 2007 gars yi bind nañ ne marabu bi nga xam ne moo ëpp taalibe Amérique mooy Imam Hassan Cissé radiallahu anhu moo ko fa dugal dugal fa lislaam dugal fa tariqa tijaaniya donte sax lislaam Euh, bu bëri woon foofu it bu fa nekkoon it bëriwut fa ndax ba muy dem London di jàngi maamu moo ko fa yóbbu ba mu paree jàng am liggéey ci euh, Muammarul Qaddaafi ci liggéey buñ ko waroon a fay euh, mu wax yónni Sëriñ Màkki si Baay pour mu waxal ko Baay ne dafa bëgg a dem liggéey boobu bàyyi ne ko man li ma bëgg man mooy nga dem jàngi ci angale gis nga ba mu demee Angleterre 1900 ba 1900 mu ngi dem foofu 1974 gis nga ba si la dugg Amérique ba mu duggee Amérique waxtaan bi mu fa njëkk a def def na ko si ñetti waxtu ba mu paree américain yi toogoon foofu ne ko ñun ñii ñëpp tey boo joxee ndigal ñu dugg si tariqa tijaaniya ndax dangay gis ne mas naa nekk ak benn waay moom imaam ndax dama lay wan yari bàyyi ndax imaam yari baay la bàyyi ko defar dem na euh, fekk benn si benn restaurant lekk ba pare ba mu pare mu ñëw si borom restaurant bi toog ak moom di waxtaan ak moom Euh, yëkkati alal ju bëri may ko yàggut dara waa ji dugg si lislaam ndax loolu mooy jikkoy lislaam dem na it benn journaliste yi ñëw di ko laaj nan ko lislaam joxut jigéen xaq mu ne ko ñeenti yonantu seen yaayee leen yar seen baay yi fekkee wuñ ko mu ne ko yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonti yàlla isa yonti yàlla moussa yonti yàlla ismail mu ne ko ñeenti yi seen yaay leen yar te seen bàyyi fekkeewuñ ko mu ne ko lislaam joxut cër jigéen ndax lu tax muy séddale góor di am ñaar jigéen di am benn imaam ne ko buy kër bu ñuy tabax kër góoray tabax kër bu ñuy joxe góor ay joxe dépense bu ñuy takk jabar góoray takk jabar bu ñuy joxe can góor ay joxe can mu ne ko man mii sama bàyyi génn na àddina bu yàggut eh, man li ma fa doonee dama si dolli suma alal ngir dépassoo ko waaye suma rakk yi jigéen lañ ci am ñoom dem nañ jaay ko lu leen neex waa ji dem ba benn jamono waa ji ñëwaat imaam ne ko ndax da ngaa am looy laajte mu ne ko déedéet aw ma lu may laajte tey damaa ñëw ngir dugg si diina ji nga gis ne moom si boppam daan na wax toog na di nettali si benn waxtaanam mu ne am na benn américain bu ko mos a ooyee dëkk bu sori ci Amérique ne ko ba ma tegee suma loxo si sa loxo ba tey mooy ma yàlla waaye loolu yëpp jeexantali baay la yaa ngi laajte baay ak Nigéria baay bu dem Nigéria mu ngi fa gannaaw ba nga xamee ne jugee na aj 1937 eh, ba mu ñëwee Nigéria la dem ndax boori kanu la dajeeg foofu bu ko boori kanu gisee ne ko dafa am ku ma doon wër ndax yow la bàyyi ne ko man la waaw ah, moom dafa ñaanoon yàlla ne bu ma demee bu ma gisee xalifa Cheikhu Tiyaan bu ma demee ma yeeslu si moom ba mu gisee baa yeeslu si moom bàyyi it ba mu ñib see aj toog na diit bu yàgg doog a dem Nigéria ba mu demee Nigéria kanu gi ngay dégg li muy rëy rëy yëpp bàyyi juróom fan la fa def kaashiful albaas la leen bàyyil am na ñoom maalam Tijaani Ousmane ñoom maalam Sani Kaafanka seen sëriñ bi ñu nekkaloon ba nga xamee ne Baye ñëw na ñoom bañ jàngee kaashiful albaas ñoo ñëw seen sëriñ ba ne ko ñun dañoo bëgg dem toppi ji Baye sëriñ ba ne ko ndax ñeme ngeen ma fee bàyyi dem di toppi ji beneen sëriñ ku may man sëriñ ba ba mu tëddee nelaw si la gis Cheikh Tiyaan Cheikh Tiyaan ne ko xanaa xamoo ne si àddina aw ma benn xalifa lu mooy waajoo ji ñëw fa sëriñ boobu si la xëy wax ñoom maalam Tijaani mën ngeen a dem maalam Tidiane Ousmane moomu ak maalam Sani Kaafanka bokk nañ si ñi ñoo ñoo njëkk a ñëw Madina ci waa Nigéria te waa Nigéria it ba fa bàyyi di dem ay borom xam-xam yu mag la fekk loolu Sénégal war nañ koo xam bu ñu yaakaar ne bàyyi dafa tëb rek dugg Nigéria rek waa Nigéria topp ko ndax gis nga addina euh, bii bu duwutoon ak mboot ak faydatu tijaaniya bi bu fa duggee dara du xew ni fa ñeneen ñuy duggee diggéen loolu rek lay amee waaye mboot ak faydatu tijaaniya bi nga xam ne addina yëpp ñu ngi ko doon fooglu loolu la fa bàyyi duggee addina yëpp it nangul ko fa yaa tey boo demee Nigéria lu ëpp ay million yi millions personnes ñu ngi fa nekk nekk ay taalibe baay te loolu mbir ak yàlla la yàllaa ko def ndax xam nga Cheikh Tiyaan wax na taati faydatun ala ashaabi hatta yadxula naasa fii tariqatina afwaajan afwaajan faydu dana ñëw waaye da gis ay kuréel yi kuréel dugg fa wax naa léegi ne baay wax na ne fa faada ni sirruhu fala ahad yaxsudu ni maarafa allah qad qaruba alhabibu wal mazaaru mu ne e, mboot mi bëbb na ci moom ba nga xam ne e, ziyaare koo kaay bi jege na mu ne muy góor muy jigéen muy ndaw muy mag képp ku ñëw si moom rek dana àgg ci yàlla te faydatu tijaaniya boobu muy waa Nigéria muy waa Mauritanie muy àddina bi yëpp daan nañ ko fooglu ndax am na benn waay bu nekkoon Nigéria e, ku ñuy wax Cheikh Ousmane Dam foodu kooku digganteem ak bàyyi téeméeri at dox si waaye mës naa woy benn woy di wax ne di wax feeñ ak baay di wax wax na ba fu muy feeñ wax na kuy baayam tudd na turi baay mu may mu muy maam alaaji Abdoulaye tudd na turi yaayam te boobu téeméeri at moo dox digganteem ak baay baay doog a feeñ kon nga xam ne ñooñu yàgg nañoo fooglu faydatu tijaaniya bii loolu moo tax ba fa baay duggee it ñoom ñëpp it ñu nangu loolu gëm loolu bëgg loolu tamit loolu lañ toppee baay ndax duwut ne dañoo toppee baay ngir ay alal wala ngir déedéet yàlla rek lañ toppee bàyyi ndax xam nga dañuy wax ne bëccëg soxlawul tegtal bëccëg moom gumba sax bu bëccëg jotee dana xam ne bëccëg jot na waaye ñoom bañ gisee bàyyi rek xam nañ ne lañ doon war mu ngi si waa ji bàyyi mas na dem di dem Mauritanie euh, ba mu demee ba àgg euh, fële Ndar euh, dajeeg Cheikhaani mu yéex a ñëw Cheikha Cheikhaani ba mu ko gisee lu mu wax achamsu badat bi leyli taaliwaha saadu wa ma kaana chanu chamsi bi leyli an tabdu li mu wax jant daan fenk guddi xam nga leer ak jant mooy loo xam ne bu fenkee ñëpp danañ xam ne jant bi fenk na ndax weer bii di leer guddi ci leeri jant bi lay jëlee muy bidiw yeeg yëpp loolu moo tax ba bàyyi feeñee nag si àddina bi ñëpp nangu ko te ñëpp gëm ko mbir moomu nag moo tasaaroo tey si àddina lépp ndax ca koosi nga xam ne boobu faydu bi génn gut lan la baay wax dafa bind benn waay leetar benn ne ko maa ngi lay oo si faydu tiyaaniya bi ow ma la pour nga ñëw dimbale ma waaye maa ngi lay xamal ne fu suuf si yegg rek faydu bii dana fi yegg ci jawaay rasaayil am na ku ñuy wax Alassane Ndiaye si muqaddami maam alaaji la bokkoon bàyyi def na ko boo mënee ñëw si faydu bii nga ñëw boo mënta ñëw bul xeex faydu bi mu ne ko faydu bi xeex ko du yokk faydu bi dara lu may feeñ mu ne ko te képp kuy jéem a nëbbu faydu bi du ko yóbbu du ko mën mënu koo nëbbu daf koy yokku feeñ rek ndax xam nga ne faydu bi bu fekkoon ne mbir la moom xam ne du dëgg mbir mi fay na bu yàgg ndax wax naa la léegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na alxaqu yaaluhu wala yula dëgg mooy féetee kaw te dara du ko féetee kaw loolu moo dugg Nigéria mboot moomu moom lañ naan ba nga gis ne tey foo leen fekk bàyyi rek lañ bëgg bàyyi rek lañuy ñuy nooyee ndax ku génn tey Sénégal dem ba foofu sax boo ootewul ne taalibe bàyyi nga sax pour njëriñ nga nga fa soxla doo ko am te loolu yëpp mbaax yàlla la yàllaa ko jox baay te baay ba mu ootee faydu bi ba léegi kenn oote waatu ko te keneen dootu ko ti ba pencab yàlla ndax la nit ñi doon xaarit yàlla mattalee na ko si loxo am ndax Abdoulaye Wulul Haaj benn naar la wax na bàyyi ne ko faydu bi ñu bëri oote nañ ko waaye matewut seen loxo waaye mang lay xamal ne ci sa loxo lay mate waaye di nga gis si noonu loo xam ne kenn mosu koo gis si àddina waaye amul sikki ne yàlla matal na loolu te ba lay ba tey mbir maa ngi dem te du dañ di demit ba pencab yàlla Euh, di di la jaajëfal tamit imam euh, kàddu gi set na te neex naa dégg di jaajëfal ñëpp di leen gërëm di leen sant te di leen wax ne saay su ne ñu ngi ànd ak yéen lépp li nga xam ne mu ngi xew fii nga xam ne mooy Kaolack ci gàmmu 2020 bi ñu fasee leen kat bokk ak yéen maanaam buñ ci jógee ci waxtaan beeg sëñ bi ah, dañ ñëw fasee ne jàkkaarloo ki nga xam ne moom moo fi indi ndaw si nga xam ne moom moo euh, yeeslu boppam dugg ci biir lislaam ah, sëñ bi ñu lay laaj rek moom donte mu mënul wax fu mu nekk nii xam naa xol bee tooy euh, ñu lay laaj moom lan moo ko motiver ba mu dugg ci diine bi nga xam ne mooy diine Seydina Mohamed rawatina ñu nekk ci weeru bi nga xam ne weer bi ñu koy màggal euh, ñu lay laaj moom lan moo ko motiver tey ba mu dugg ci biir lislaam alhamdulilah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sant yàlla julli si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu mbooleem jotaay bi ñu dal nuyu bi suñu sëriñ suñu wasila suñu lépp di ko ñaanal yàlla li nga xam ne duñ dañ di ko ñaanal dayman mu yàlla defal ko fan bu gudd may ko wérgu yaram ba mission bi nga xam ne moom la bëgg doxal ci alamul islam bi ak ci faydu ibrahimiya bi yàlla lépp mate si loxoom ya rabbi waaye di ñaan ñaan boo xam ne tamit duñ dañ di ko ñaan mukk yàlla suñ bëggeel yokk ci moom dayman soxna si Suède la jugee Suède la jugee ñëw si gàmmu ki njëkk muy nekk jullit nag dafa am muhabba ci imaam Hassan Cissé dafa am bëggeel ci imaam Hassan Cissé njëkk muy jël muy tuub nii daan na pratiquer mboolem la jullit di pratiquer di julli waxtu yi juróom di dem si place xadara yi wante xañ na boobu dafa tool moo tax muy def loolu ñun ñii tey suñ demee ba toog ba mën a téye micro nii sa di wax sëriñ bi moo ñu defar walaw matuñ sa tey la soog a man ba mu gisantee man xamuñ nag luñ def lu mu def ba am motivation mu jugee si man parce que su lu ñu sëriñ bi yar rek si loolu lañ nekk tey suñ kurus julli dem si wasifa dem si loolu rek lañ nekk tey la ma gis ba mu ma gisee mu woo ma wax si ak man far yàlla def mana moom ñu bokk kuñ bëgg mu imaam Hassan Cissé radiyallahu anhu yàlla na yàlla taas ñu ci barkeel mu expliqué ma loolu te man damay faral di wax ne man képp koo xam ne bëgg nga imaam Hassan rek man bëgg naa la ba waxee loolu si minute bu ma ko wax maam maam mbëggeel bu jëm si moom nag luñ bokk ku bëgg yàlla def tamit musul ji sëriñ bi wante nee na mu ma xaw ma kan mooy sa sëriñ wante si kooku laay demee jël si moom tariqa tijaani nag tariqa tijaani moo ko fi indiwoon ba mu ñëwee ñu waxtaan ak sëriñ bi sëriñ bi waxtaan ak moom xam na jëlu tool juróomi ponk yi defu tool yooyu lenn sëriñ bi waxtaan ak moom teg ko ci yoon dugal ko ci diine islam bi di ñaan yàlla yàlla saxal ko ci diine islam di ñaan yàlla sëriñ bi lépp loo xam ne ñaan na ko fi rek yàlla nangu yaa rabbi suñu kàddu du bëri nag du cër sa wala du respe ñuy wax ci kanamu sëriñ bi wante xaj na comme moo ñu may ndigal rek barke ndigal boobu mën na matal suñu wax ji salaamaaleykum wa rahmatullahi wa jërëjëf soxna si soxna si danga am kàddu yoo ci sànni jërëjëf mbokk yi ah, gis nañ ni ah, ah, amati na ndam li ñu wax rek ne l'islam moom du fekk ci kenn waaye dëgg dëgg la boo xamante ne képp ku ko dégg rek bu te bu tàbbee si sa nopp rek boo naree dëgg dëgg di nga fekk si dëgg gi kon ñu ngi jaaja jaajëfatal encore ñëpp di leen gërëm di di leen sant yéen ñëpp di leen wax ne Sunugal 24 mu ngi ànd ak yéen ngeen accompagner leen ci biir gàmmu gi yàlla nañu yàlla defal jàmm di ko ñaanal jëp di ko ñaanal képp ku fi teew di di ñaanal ñëpp jàmm jërë ngeen jëf